Ah, lan mooy seen seen priorité. mais comme tout le monde ah actuellement au moment tey priorité mooy euh, les parrainages. ci ngeen focus. fu mu nekk nii priorité bi moment tey c'est les parrainages. ban liggéey ngeen ci def. ah mais liggéey bi mu ci doy parce que la chance que nous avons nous au de la CAP 2024 euh, euh, mooy maanaam tey jii foo dem ci Sénégal on a un militant y a un représentant du CAP 2024. dans les 46 départements 46 et ce qui est rare si koo xamante ne nii tey jii dañuy créé doo doo créé benn parti politique mais créer parti politique cela veut pas ne yaa ngi doog a def politique. Mhm. parce que qui connaît Alioune Sarr c'est que au moins il a fait neuf ans mois euh, si donc xam ay poste ministre du commerce six ans trois ans trois mois tourisme et transport aérien donc euh, il connaît d'abord le Sénégal. nit yi nit yi nekk ci kii bi euh, boo leen demee di ut ay parrain yaa ngi woon si terrain bi non. ah mais euh, bravo nit ñi nekk si terrain boo leen ut parrainage yan message ngeen di jot foofu. amee ah, mais message bi actuellement tey jii ñun. maanaam boo ñëwee nii Alioune Sarr la la bëgg ñu pare parrainé ko lan la ñuy wax. et la message mooy que ne du ko bees c'est un produit boo xamante ne tey jii bu neexee. il est pas ko bees mais du ñëpp ñoo ko xam. mais moo dama un produit boo xamante ni bu neex a jaay la tey jii quand tu parles de wala leen photo les gens te mais ku yaru kii ku tey kii. alors ah, mooy message soo ko xamul soo ko xamul ñu ne Aliou Sarr mais quand tu sors ne leen kii mooy Aliou Sarr li ñu la jëkk wax non si dama mooy ku dal la ku tey la ku yaru la et Sénégal gu ñu bi ñu toll nii tem valeur yoo la ñu soxla fu mu nekk nii suñu dëkk bi. ku yaru ku dal ku tey.